xamna naa def euh, historique bi dañ fiy jël temps mais ñun ak maire bi depuis l'année passée dañu amone ben contentieux ci suñu place publique bi daf ko jaay jaay bo xamné amul délibération le conseil conseil municipal bi prononcé wul ci ni mu délivrer place publique bi après buñu ñu ñun ci suñu biir ñu concerté ñu xamné kat li dañ ko joxe ci njut njaaj ñu yobbu ko ci yoon légui nak bi démé procès buñu démé demee bi ñu intenté procédure civile yàlla def ñu gañee ko léegi nag ñu ne comme euh, gagné nañ civil bi dañuy dem pénal parce que actes yi c'est des actes délictueux loolu moo tax ñu yóbbu ko ci yoon. tey procès pénal bi dañ ko waroon a def débat contradictoire à la bar avocats yi dañoo waroon a ñëw ñu layoo mais il s'est trouvé ñaari avocats yi waxtaan nañu. ba ñaan ñaan juge bi renvoi ba juge bi may leen ko quoi ce qui veut dire que le 18 inchallah allah ci la juge bi retenir né da koy atte définitivement dina ko atte le 18 quoi voilà pour ñu vider affaire bi le 18. lu ñu metti c'est simple parce que dañu am une place publique historique bo xamné ne rek lañu dese ci Mbour mu nekk ci centre ville bi nekk poumon bo xamné mom rek mo fi dess ñu xey gis maire bi jox ko ben promoteur privé bu tuddu Ndarte Dieng bu nekk Thiès mu ñëw indi ay bulldozer di daj bi mu commencé di daj et tout ñun ñu dem séti maire bi waxtaan ak mom ne ko suñu place publique bi ci nan nga ko joxé mais le maire nous a répondu d'une manière arrogante biñu génné nak ñu waxtaan ñun ci suñu biir ñu ne doot ñu fi nek di def ay bataille d'opinion d'opinion di ak mom di fi ñu ñu yobbu ci kaso bék yoy tay lu ñuy def moy on va utiliser les voies et moyens juridiques et judiciaires pour que le maire réponde de ses actes loolu motax ñu indi ko tay ji ci tribunal bi légui nak yalla def na biñu ñëwé dem civil juge bi nangu nako ko am nañ recevabilité ba mu atté jox ñu gain de cause comme am nañ gain de cause nak ñu né pourquoi ne pas aller au pénal pour que le maire puisse nous restituer notre place publique en l'état non seulement dafa wuyu si mais aussi dafa wuyu si ñi nga xamné ni moom la jeunesse mbouroise moom mooy pour ñëw wax leen ni que place publique bi ma jaay lan motax ma jaay ko ak fa la ko tek su ko tegee su lu leer yaakaar naa ne ko juge bi wóolu nañ ko dina àtte su lu leer aussi mais ñun njort nañ ni que jaay ko jaay bu leer papier yu ñu jox jàpp nañ ni que papier yu ay faux la dañ koo falsifié donc looloo waral tey ñu am fitu ñëw di ko topp au pénal moo ñu nekk ñu ñoo taxé suñu bopp euh, de corruption xam nga peut-être moom moo si gëwoon moo répondre moo tax peut-être euh, ñun suñu waxee day mel ni dañ naan mbourgis moom mooy waxaat rek waaw mais peut-être tey suñu gisee waat ensemble c'est juste dans le ni peut-être place publique moom ñor suñu objectif au début c'était de récupérer la place publique delloo ko ci loxo Mbour donc tay ak luñu mëna xiro a xiiroo ŋaayoo xam nga donc laaj après ñu revenir encore en arrière jàpp ni que suñu objectif c'est la place publique donc aussi nañu bolé ñun ñëpp pour xex pour jotta suñu place publique. aussi dafa am ay ño xamné ne nii dañoo ay ay kilifa ci dëkk bi ay kilifa na suñu ay mag tamit suñu doxé ñaan la ñaan len boole leen aussi parfois doo mën leneen lu dul nangul leen dañ koy lu ay kilifa yu nekk si dëkk bi ni peut sax am na ñeen ñoo xam ne duñ bëgg ñu wax seen tur mais aussi dañuy rafetlu peut-être geste boobu ñu def. léegi nag ay ñoom Cheikh Ndiaye ay ñoom Paal yi ak ñeneen ñoo xam ne ni peut-être ngi si dëkk bi donc di def loolu noonu di def lu baax donc ni soo defee lu baax aussi tamit dañ koy wax donc peut-être tamit mënoon nañoo ñëw ñun ñu xaaw a bañ en tant que jeune parce que tamit euh, jeunesse la dañuy am benn certaine fugg boo xam ne moom la ñuy demee donc nañoo bañ mais aussi peut-être ñoom fu ñu ko teg leer na moom mooy delloo ñu si combat bu ñu nekkoon combat bu ñu nekkoon moom mooy ban combat moom mooy fexe le tout ba place publique bi nga xam ne monsieur le maire da ko jaay mu jaral ñu gars ñu yóbbu leen si police mu jaral ñu gars nekk si terrain bi du def lu nekk mu jaral ñu gars yi di nekk ay un an sur le terrain di cotiser di joxe xaalis di dugal donc loolu noonu tey suñ ko naree bàyyi mu nax saay si ay question yoo xam ne ni peut-être euh, léegi mun nañ jàpp ni que c'est pas du tout important donc war nañ mun a xel ensemble pour récupérer une place rendez-vous le 18 inchallah, parce que Mbour waay yëpp dañ leen di woo tey ñëpp ñëw mais le 18 incha allah ñëpp ñëwaat encore nous ni que ñoom vraiment nous parce que aussi euh, quand quand il y a un problème et puis que les gens restent conscients c'est comme si que yow un problème déjà wala yow da ngaa cautionné problème bi su nekkee d'accord aussi jaay bu ñuy des soucis, je pense que ni waroo xaar sa mais dañuy woote rek woo Mbourwaay yëpp woo jeunesse bi woo population bi ñu bàyyi xel si lu président de la république wax si côté foncier bi.